jërë ngeen jëf mbokk yi seetaan wasaare làmb nuyooti nañ leen am kontaante ak mbégte jàkkaarloo waat ak yéen ñu koy defee saa su mbokk yi ñu ngi fii ci stade Jom Iba Mar Diop ki ñu fi woo di idaale ñi ngi ñi ngi production boole fi ñaari ndaanaan kenn ki di Agogo mi nga xamante ni bu jugee parcelle gi jóg Grand Médine jóg Grand Yoff jóg ñëpp ànd ak moom xale boobu di Agogo muy bëre kan Thielly bu plateau mel mi nga xamante ni bu jugee waa ñaari tali biscuiterie ñëpp jóg ànd ak moom mi nga xamante ni mooy Thielly mbokk yi ñu ngi fii ci stade Jom Iba Mar Diop leen wan lépp loo xamante ne xew na fi ci aada ak cosaan gaa yaa ngi noonu di dugg si Adama jëlama gaay yor ay guro yi ñu xar di ko dugal ci suufu saaku làmb ji Thielly ngi noonu jóg na nee na may leen ma ndeysaan mbokk yi Thiel ngi noonu dugal na tànk ndi bi teg na ci bu càmmoñ ba taxaw na am na butéel bu mu jël wis na ci kanamam cey làmb wis ci kanamam jéggi na nee na kaay leen Thiel ngi noonu moo war a bëreeg Agogo. on le fou le grand champion maa lay nuyu. waa jili bu wasaare lamb bëggee naa la borom wasaare lamb maa ngi lay seetaan mais yaa ngi koy wàccee Sénégal yëpp yow la ñuy seetaan boo xamee boo ko xamul nag bàyyi boo nga lokk liggéey bi sëñ Fallou yow. suba wala boog le 11 ñaari ndaanaan dañuy bëre Bébé Bismi ak Ada Fass mu am foo jaar ak Ada Fass Bébé Bismi mos ngeen a bëre. Bébé Bismi mosu ñoo bëre yàgg na ñoo bëgg suñu combat mais mosu ñoo bëre quoi. noo gisee Ada Fass ak waaw combat la parce que ah gis naa Bébé Bismi di ko xaw a sous-estimé quoi mais bu mu ko jugé ci li ñu bëri woon maa ngi moom boo ko xoolee Ada Fass rek da ngay juum ñu bëri nag foofu lañ koy xoolee ko mais moom champion la barki Seydina Mohamed mën na bëri am na doole te ñëwul ginnaaw tamit buñ ko xoolee ci dernier combat am rek dañuy juum quoi waaw. combat bu neex la nag quoi combat bu neex la maa ngay bàyyi xel démb maa ngi leen di yi nga mais chaque jour damay gis ni bis Bismi daf ko xaw a sous-estimé quoi mais moom bu bëree loolu mën na am lu ko bett waaw. moom Bébé Bismi. Bébé bu bëree waa loolu loolu mu wax noonu bu ko bëree waalee mën na am lu ko bett ndax gis na chaque jour Ada Fass day dëggal boppam da koy wanal ni bés bii nii jaral na ma dee mais Bébé Bismi chaque jour moom dafa gëm ni mën na koo duma daan ko lamb la nag quoi kenn xamul koy daan mais bu bu bu bëree loolu mën na am lu ko bett daal pour man ci dama gis. moo arrangé Ada Fass ak moo lan moo arrangé waaw Ada Fass ni mu daan bëree rek parce que xëy na ñun ni ñu bëree moom ak ni ni ni gars yi di bëree ak moom bokkul parce lépp aduna lépp ay code la ñun am na am amaana am na ay code yoo xam ne nii xam nañ ko mais li mu indi woon sama combat ak moom bu ko indiwaatee barki Seydina Mouhamed du neex a daan Bébé Bismi li ko arrangé mooy mu respecté booy bi jox ko waaw bañ a bëree. maa ko mën maa ko jiitu ci làmb et cetera Ada Fass daa nekk mbër mu naqaree bëreel mbër mu naqaree bëreel la billaahi wallaahi taalaay nekkul dara moom moo tax may wax quoi mais billaahi man fi may xool ñoom Modou Lo ak ñoom Eumeu Sène man fa laay xool Ada Fass la buñ ko jugee sama combat moom rek dañuy juum. maa ngi dégg sa combat taxaw na wala taxaw. waaye ñuy wax sama combat yu bëri nag nekkul benn mais benn taxawagu ci maa ngi wax ak ay promoteurs yu bëri. mais benn taxawagu ci ko ban ak ban nga gën a bëgg ci combat yi. non bàyyi ma bàyyi mu sedd rek ñu ngi may wax ay combat moom yu bëri wax dëgg neex yàlla mbëri mu jee bëre nii yëpp ñu ngi may sama combat ak ñoom mais benn taxawagu ci ay promoteurs yu différent tamit ñoom ñoo ma ko wax maa ngi toog tamit di xaar ko quoi waaw. Ondo wax ni la Wassare Lamb moom la ñëpp di seetaan boo ko xamee boo ko xamul boo ko yëgee boo ko yëgul seetaanal vues yi ak commentaires yi rek na la firndeel lépp bëggee naa la jiili. jaayam kay. jërë mbokk yi seetaan wasaare lamb mbokk yi nuyu nañ leen tey la samedi 4 janvier 2020 fii ci stade Diop Iba Mar Diop Idaly ñu ngi moo ñu fi woo di ñu ngi production ci diggante combat Thio moo leen féete joor mooy bërek Caatu Lamine Gueye moo leen féete càmmoñ mbokk yi ñu ngay coo ak caatu Lamine Gueye moo ngem boo lu bulali coo moo ngem boo ngem bu Lagos bi ndeysaan jë coo sol na loxo ba ndi jooru ba jàpp na coo lu mu def wala caatu Lamine Gueye lu mu nar cay làmb ndeysaan coo caat Lamine Gueye ndeysaan coo caat Lamine Gueye caat Lamine Gueye na ko coo jël na tànk ba bañ na lu ñu nar ndeysaan ñaari xale ñu ngi ci combat bi ba tey waaye coo fàqat ya muy daa bëgg caat Lamine Gueye Caatu la ngay fàqat coo coo ngay fàqat Caatu Lamin samp na omba ndeysaan sànq ba tey moo doon fàqat moom Caatu Lamin ngay ndeysaan Caatu Lamin ngay coo jël na ko daan na oo oh! coo daan na coo jaan na ko ndeysaan waay coo coo maa lay félicité. waaw maa ngi siyaar wér maa ngi remercier tamit gaan maa ngi baax baax baax baax sant waa Kër May Fall jàppale nañ ma aw ma seen fay sonn nañ si làmb ji ak seen tubaab wala bu taxaw ba tey ñoom mooy jàppale. bi mooy sa ñaata combat. loolu mooy deuxième combat. deuxième combat deux bëree ba daan ki nga xamante ne mooy Thiatou Lamine Gueye. waa def tey rek. teg quoi loolu ma conseillé quoi dafa nànk sa morom la adversaire la bu ko xeeb yaa ngi dégg xam ko ab yombul xeex nañ bëri nañu mais yàlla moom am moom moom faral xam moo mais laa mel ni bu dee liggéey nag bu liggéey lu mel. ma xaw ma woon ma ko daanee wóor na Sëriñ Tuubaa bëri rek xaw ma woon ma ko daanee sant sama gars baax a baax a baax a baax ma wéru sama yaay sama yaay bu baax a baax a sant suñu waa koñ ñoom Pape Kane ñoom maam Cheikh ñëpp baax na kenn moo war a laale ceeli ndaysaan ngeer la takk ca bopp ba ma ngay daw tibb na suuf sa yuuxu na ndaysaan aga góor ñi noonu gërëm yàlla si kattanu yàlla. xeex wala bëre. lépp laay def lépp laay def si kattanu yàlla yàlla na ma yàlla may ndam ci kawam. jaajëf. Ndongo Lo. waaw doon nañ. maa ngi lay ziar. ngay delloo ziar nekk. maa ngi fii liggéey rek. sa combat ban moo taxawagum ndax maa ngi dégg ñu ngi laam-laame sa combat. waaw maa ngi ko doon defu léegi léegi taxaw waaw. seen naa war seen naa waaw. taxaw na taxaw. loolu lu si taxaw bëriwul nag. incha allah. xaaral ma dem jëm. Onde. waaw mais xamee nga ki taxaw fële. gisuma ko gisuma ki ñuy taxawal sa combat yéen ñaar. la kooku. ku dëkk Grand Yoff. Grand Yoff. waaw Grand Yoff non. la man ba tey leeraloo ma de. Ndongolo. Ndongolo waaw waaw waaw. nee na bi presque pare na. ci moom pare na. looy xaar yow. man maa ngi wax ak promoteur déggoo guñ comme ni ñu war a déggoo quoi. wax nañ ma Ndongo Lo ba ngaa bëri moom man leen waaw léegi weccoo nañ ay kàddu mais xëy na presque pare na ci moom mais man pareegul ci man parce que man promoteur waxuñu lenn waxaaleeguñ sax prix quoi bëgg nga Ndongo Lo mu ne ma waaw rek ci la ñeemagum. kon Ndongo Lo gis nga ci lu mu jugee. dégg na ci lu mu gis nga ko. waa mais dara loolay lamb rek parce que dafay tegle woon ay victoire yàlla bu ko nattoo mu dem ba teglewaat ay defee tamit loolay àdduna ndax man toog naa fi temps bi yàgg ma loolu du gàcce quoi. loolu du gàcce nekk ci benn métier di ci liggéey moom loolooy conséquence yi chaque jour ndama ngi ci gàcce ngi ci waaw moom nag yàlla dafa def mu teg defet moom def ko boppam kii ko boppam quoi yàlla moom moo def loolu. nekkal fii di ko baab rek moom nee na ma xoolal matt do bi wala ko ond la fu mu ngi lay nuyu daa matt. waaw toogal fii di ko baab waaw waaw moom ci li ma jugee moom moo tax ak man ci li ma jugee man mbër bu daanoo sax dama lay yërëm ndax yi ngay dégg parce que man jaar naa ci mbër bu bi bu nekk dama koy yërëm ni Onde sama mag la nit ku baax la moom moo ma gën mais nag bu desee lu dul ci géew yi pour ku nekk joxe sa bakkan barki Serigne Saliou dañ koy joxe. jaajëf Onde ay jëf gaynde. Thiel mu ngay naaw di naaw di ngay naaw Thiel noo waajee tey. waaw tey li ma mooy xam nga rek waaw ñëw ak teg. waaw ak daal quoi yaa ma gën a xam ah. ànd ak samay waa Bawol gi yëpp tey Bawol gi a ma daan ah tournoi ah. ma fi ah. lan moo koy gagné euh, laajul xeex laajul xeex mën a am lu mu gën a mënee. non man man Paka Ñaari Boora foofu woo ma wëyul ak góor laa wax sa adversaire lu mu gën a mën a. waaw kooku mënewul dara mënewul nen dama koy corriger léegi yàggatul quoi waaw. jaajëf Thiel waaw. mooy loolu sama lonkoo la ci sama seex la parce que seexul xat mais noo bëri noo bëri bon li ma bëri xamal la waa kër xam naa dañu su ma doon xaar tey lamb de classement la lamb de classement la xale laa mais boo ñëwee kër may baax dina xam man lan laa mel man kan laa mooy sama deuxième combat deuxième combat waaw maa lay ziar mooy del ziar wér naka mu foo nekk tane maa ngi sama dëkk rek toog xam nga anaata samay mbokk samay nit waaw dama bëre doomu daangu ñàkk ba léegi gisuñu Farouz xamuñu lu mu lan ngay waajal waaw jàmbaar dafa wut doole rek bàyyi sam bopp baax a baax a baax tool boobu bi nga xam ne maa ngi ci dara yaa ngi dégg amaana jaay pexe yàlla dogalam parce que tamit ñëpp daal di ko sant yàlla daal xam ne ñu xam fan dinañu xaar rek incha allah ñu ngi ñëwaat léegi di yàgg incha allah. lan nga bëgg ñëpp laa bëgg su ma met su ma amee damaa dugg dëgg yi daan ma dama bëgg a joxaat ma ama neex laa bëgg ama neex laa bëgg. ama neex maa ko victoire te mënu ko defet danañu bëre ama neex laa bëgg bëreel ne ko man sama yoon dama wax ne ko jël benn benn booy samay morom laa bëreel da samay preuve yàlla dogal ma am ci nu ma jógee xam nga ma tegle ma am 18 combats la am 4 défaites samay laa bëreel ma taal lu ma yoon ma xaar sama bëgg si kon awane dama bëgg ñu bëree ma ak moom waaw parce que da dama feebar ñaan feebaruma woon te wér ñu xool loo ñemee amaneex dañoo war a bëre des champions man champion laay wër de tey su ma kat dama nii mën naa wër ñu ma ay mag su ma nee jël ma ñooñu noonu mais du jël benn mag. Amady nee na moom daa doyal ci xale yi parce que booy bawol bi ñu jox sax du combat mais bi mu jëlee booy bawol da koo mu daanoo nee na beneen xale bu fi ñab ba yëpp ba jël avance am da lay dóor nga waat. dégg nga li ma la wax ñun làmb mooy suñu métier yaakaar am na suñu am dañoo xaw ma kenn xamu ma woon xaw ma ma ñëwaat naa nag ànd ak samay mbokk ñëwaat naa incha waaw. jaajëf waaw jaajëf dégg nga Maytin jël na ko Maytin jël na ko Maytin ba daan na ko waaw waaw waaw waaw Maytin waaw waaw Maytin Maytin daan na ko jël bu koy wax Serigne Cissé mu sëñ Babacar xale la waaye xale bu baax kilifa la ci réew mi kilifa la boo xamante ni moo ko defal gis nga sëñ Bass wala aadama kilifa di ci aas yàlla moo koy def ci nit sëñ Cissé mi kilifa la ci réew mi ndax boo xoolee fi mu toll ci réew mi ak délégation bi mu àndal nga xam ni kilifa la ci réew mi mbokki huitième combat de la soirée ngi noonu dox ci diggante Batista moo leen féetee càmmoñ mooy bëreeg Étoile Jolof ar bi sifflé na Étoile Jolof ndijoor Batista càmmoñ arbitre bi sifflé na ngay demee wet ña ngay demee wet Batista cokkaas na waaw lii lu mu doon Batista door na ma ngay jam lamb Batista ma ngay xeex Batista ngay door. Batista Étoile Jolof Étoile Jolof jël na ko daanu doom mot mot na bañ na eh Batista eh Étoile Jolof jàppante na ñaari xale Batista Étoile Jolof ma ngay door ay Berkut plaqué na ko bañ Batista Étoile Jolof Batista dooran na plaqué ko bañ. étoile ngay fayu cey lamb géwal ngay dégg fu mu toll nii ndeysaan géwal ay way géwal ay tëgg waaye surtout alaaji jóge kebe bi tamit géwal la moo am foofu muy jiili kebe paxa daan na ko daan na ko oh, Jolof daan na ko sama papa du Njaay Papa Doudou Ndiaye maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay. ndeysaan ñoo bokkoon dëkk fële ca parcelle unité 3 nga nekk ku baax nekk référence nekk suñu papa tey bisu ku mel ne sëñ Cissé mu sëriñ Babacar si ñu gis la fi ban relation nga am ak moom. sama xarit sama rak ku baax euh, gannaaw ba nu sant yàlla julli ci yonent bi di sant sëñ Cissé mu sëñ Babacar dafay suma lépp di wax rek ni leen nan ko ñaanal yàlla gudd fan ak wér. ndax moom sëñ Babacar wuy si na ko ba nit ñi xam na loolu ndax sëñ Babacar bu la wuy see dañ ciy boole yar dañ ciy boole sutura dañ ci boole teranga dañ ci boole sopp foo dem nit ñi sopp la te moom loolu dal na ko yal na yàlla gën a guddal fanam te wéral cërëm bàyyi ko sëñ Babacar si mu mu yaakaar ci barke Seexul Xadiim mu mu yaakaar. jërëjëf sa diggante ak Serigne Cissé baax rek ak kóllëre di sama seexandoo moo tax mënuma koo baax. dama koo jàpp te yàlla tax mu jàpp ma te yàlla tax bis bu mu am ak fu mu nekk fu mu dem bu ma woowee ma fekk ko fa seen siise réew mi xamaguñ mooy kan waaye buñ ko xamoon danañ daw daw nañ sax wutali ko nag wax dëgg yàlla waaye day saa nafin bi laa dara mooy njariñ gu àndut ak lor moo tax ma ànd ak moom gunge ko di ko sant di ko gërëm di leen nuyu bu baax yéen it di leen sant di leen gërëm jërëjëf ku baax jërëjëf. Siteu ni la àdduna bi safoo ni ñu la bëggee ak fiñ la teg bis bu doy nii idaali ñu ngi tuddee la ko loo yëg. Ah, dañuy sant rek sant yàlla kontaan di delloowaat pot ba ca ndaa la di santaat yàlla bu baax di ñaanal doomu aadama yi ndax gis nit ki bëgg ko yomb na yombut kon ñoom ñoo ñu bëgg nu dañu leen ñaanal suñu borom seen jàmm yàgg ci barke Serigne Babacar Sy waaw. loo yëg ci bis bi tay bëgg naa lool kontaan naa lool. bég naa kontaan naa ndax jog ànd ak ña nga war a ànd ak dafa neex ndax dégg naa léegi nga ne ko sunu baay bu baax ñu bokkoon dëkk unité 3 du sama genn wàll la sama xarit la suma waay la ba sëriñ Bassirou Niass mu sëriñ Saliou sama soppe la sama xarit la sama waay la ak liiru jaan ñoom ñëpp jàmm rek yàlla na jàmm yàgg ci barke yonent yi maa ngi leen di bégee bu baax di leen ñaanal sunu borom defal leen tawfeex ci barkeem Serigne Babacar Sy jërë ngeen jëf. jërëjëf ñu ngi lay ñaanal ci barke Serigne Babacar Sy mi nga yaakaar yàlla nañ fi yàgg lool te. amiin amiin amiin amiin amiin jërëjëf. jërëjëf. laaj na Dame Souguer arbitre bi sifflé na mbokk yi samedi 4 janvier 2020 stade Diop Mar Diop Idaly ñu ngi moo fi woo combat spécial baa ngi noonu dox ci diggante Mbaye Tine numéro 2 ak Dame Souguer ndeysaan la nekk. daam su njël rock énergie la ne da ngay demee wet ñaari xale la yoo xamante ni lamb ju neex la nar a doon mbaytin daam su njël mbayti nee na ko kaay ci digg géew bi dagg na lang ga dagg na lang ga ñëw nañ ba ci saako yi di lewaatoo waaye saako yi duñ fekk kenn ku dem ci saako yi yaa ko fekk ndeysaan di bëggee képp koo xamante ne danga safoo wasaare lamb di ko seetaan seen mbégte rek mooy suñu bànneex lépp lu ñuy wuti ndeysaan Mbaye Tine Dame Souguer Dame Souguer Rock Énergie la ne ndeysaan fa la couronne roi des arènes bi ne ñuy nuyu Modou Xarañ Lo ndeysaan Fadam la ne ndeysaan Mbaye Tine numéro Fadam la nuyu Mbaye Tine numéro un ndaysaan di nuyu guy gi Pape Mbaye door ndaysaan ma ngay door ci suuf Mbaye Tine numéro deux ndaysaan ak Dame Sunger lamb Guédiawaye ak Parcelles xaw lu tax lamb ji du yomb rek ku weddi laajal Modou Xarañ Lo ak Balla Gaye 2 man daal lamb jaaxal na ma géejewaay parcelle derby la Barça Real la classico boobu ndeysaan ña nga ca de ñoom ñaar Mbaye Tine ak Dame Souguer Dame Souguer loxo càmmoñ bi jàpp na. waaye Mbaye Tine ñaari loxo yëpp benn jàpput Dame Souguer boo xoolee déclenché na ko Dame Souguer lu mu nar Dame Souguer lu mu nar Mbaye Tine da ko war a teg siège wala déet lu muy waaj lu muy waaj fàqal na ko daan na ko waaw waaw Mbaye Tine numéro 2 daan na Dame Souguer Mbaye Tine daan na ko fëgg na dënn ba ndeysaan yaa moom ku ñu daan nga muñ ànd say mbokk ñibbi mbokk yi samedi 4 janvier 2020 stade Iba Mar Diop Idaly ñu ngi ñu ngi production Go Thiely ña ngay leewaatoo combat bu nar a gaaw la nar a doon mbokk yi Thiely moo leen féete ndijoor ak Go moo leen féete càmmoñ ña ngay dawe wet Thiely ak Go Thiely ak Go Thielly ko ëmb rek dox ci koom Agogo cokkaas na Agogo Thielly do Agogo sokkaasaat lu ñu nar Agogo jëli na ko Thielly Agogo Thielly Agogo ña ngay Agogo sànni na Agogo Agogo ñu Agogo dooraat Agogo Agogo door jàppante nañ dana gaaw am déet lu mu nar Agogo Thiely mbot na Agogo bañ Thiely loxo bi ci ndijoor bi jàpp na Agogo loxo ndijoor bi jàpp na ñoom ñaar ku ci nekk sëq nga ngemb am nga ngemb ndengeñante nañ di déglu zongale xaj na fi wala déet caxabal xaj na fi wala déet ndeysaan ñaari xale jàppante nañ Thielly Agogo ña nga ndegeñante ku ne di déglu sa morom cey lamb wax amatu fi yoon rek la Thielly waroon wax wax na ko la Agogo waroon wax wax na ko Agogo gën naa jàpp na mbot ko góor cey lamb agogo ceeli ndeysaan ndeysaan ceeli agogo ceeli agogo ceeli agogo lu li ñuy waaj Thiely door na Agogo fayu Thiely dooran na Agogo fayu Thiely dooran na Agogo fayu fayu mot bañ na bañ na Agogo Thiely cey lamb Agogo jàpp na ci téere yi yi ci tànki Thiely bi waaye téere yooyu est-ce baax na élastique la Thiely sëq na loxo càmmuñ ba daa mel na waaye loxo ndijoor ba jàpput bu moom Thiely ma ngay gën a wut fu mu jàpp Thiely làmb hey mbokk yi làmb noonu Pape Gueye Séeri Aji Gueye borom Espagne maa lay nuyu gis naa montre bu rafet ba mu ngi ci combat bi ba tey Thiely Agogo cey Agogo luy waaj lan mooy am ndaysaan kenn du Xaadim Diop Seri ñanga Thiely Agogo ñanga ca lamb ja ba tey Agogo ndeysaan Thierry Agogo arbitre bi àtte na leen arbitre bi sifflé waat na ndijoor Agogo moo leen féete Agogo cokaasaat waaye Thierry ngay ñëw rek Agogo daw daje Agogo Thierry gaa téere yaa ngay Agogo Thierry ña xeex Thierry nga koy waaj Agogo bañ agogo ceeli agogo ceeli agogo ceeli ndaysaan maam Cheikh Mbaye Séeri Maram Taal maa ngi lay nuyu borom gën cey lamb agogo ceeli ndeysaan agogo ceeli ceeli mbot na ko wala déet mbotaan na ko agogo caxabal na ko wàccaat nañ cey làmb oh, làmb ji neex na ñaari xale yi lu ñu am waaye drapeau bi ngeen di bëre la drapeau Serigne Cissé mu Serigne Babacar ay ku daanu ku daanu gisuma la mbaaw tax jom ñoom ñaar ndeysaan ñoom ñaari xale yi cey làmb Agogo Thiely na nga jàppante ba tey Agogo Thiely ña nga ca làmb ja ba tey Agogo Thiely ndeysaan agogo ceeli monsieur l'arbitre agogo ceeli ña nga jàppante ba tey ba tey mbaa arbitre bi du àttewaat day àtte bu ngeen jàppante da ngeen di def dara rek di déglu Thielly Agogo arbitre bi sifflé waat na Agogo doxaat ci kawam Thielly door na door na uppercut Agogo Agogo door na benn léegi ñoom ñaar bi yoon mbaa si Agogo Thielly ey ku gis Agogo ni mu toll nga yaakaar amut doole yaa ngi nax sa bopp doole ji ëpp na ni mu toll Agogo ceeli ceeli jaxabal na ko bañ na lu ma la lu ma la waxoon boo yaakaaree doole yaa ngi nax sa bopp ndaysaan Agogo ceeli Agogo ceeli waaye Agogo fi nga dugal sa loxo mbaa baax na Agogo ndeysaan ñu ngi jàppante ba tey Thielly Agogo ndeysaan Thielly Agogo Thielly Agogo Thielly Agogo ñu ngi ci làmb ji ba tey Agogo mot nañ ko daan nañ Agogo Thiely daan na Agogo Thiely daan na Agogo Thiely ngay naaw di naaw di naaw Thiely ngay naaw ndeysaan oh Agogo am nga jël bu la bett waaye Agogo la def yëpp def nga ko. Samb Agogo ak Thiély jàngeen jëf mbokk yi gis ngeen li nga xamante ni moo xewoon ci journée Idaaly Gningue Gningue production muy drapeau Serigne Cissé mu Serigne Babacar Sy kii di Thiély moo ko jël diggante ci ci ak Agogo ndeysaan Thiély xale la boo xamante ni bàyyi leen ko xel ci làmb moom Thiély wane na ay preuve am ci làmb yéeg na daan Agogo Thiély fu mu jëm mbokk foofu lañ leen tàggoo tàggoo bi dul tàqalikoo ba ëllëg incha allah ci wasaare lamb jaa ngeen jëf.